li may wax nag ci tuuba yu rëy yooyu yi nga xam ne mooy yéefarloo boroom xam-xami xeet bi yépp moo di ñi bind mbind mii nga xam naa ne wax ji may wax dañ ko dégg mooy jox naa leen ab délai seeni fan ñoom yàlla na gudd lool nag na seeni fan gudd lool nañ ko def ba mu jeex ci seet téere boobee wala seet fatawaa yooyu ñu ne ngi ci seen loxo ñu génne ca tasaare bind ci mboolem làkk yi wax ñooñu ñi ñu tudd fan laa waxe ne ay yéefar lañ yëmut ca loola waaye suñ génnee àdduna yàlla na yeex seeni doom ak seeni sët buñ dikkee nañ doon nu dele boobu continuer di seet ca téere ba di ko seet ci fatawaaya nañu génneel askan wi nga xam ne ñoom lañuy waxal di leen nax waa yi ñuy wax foofu fan la yéefarloo ñooñu ci téere boobee ak fan la leen yéefarloo ci fatawa yooyu yi nga xam ne nee nañ moom lañu yore jàpp naa ne lu yàgg-yàgg duñ mës a génne loolu ànd ak ne téere boobu ñuy wax ab thèse universitaire la boo xam ne bañ defee soutenance ak léegi ñaar fukki at ak juróom la bañ noppee ci bind ko ak léegi ñaar fukki at ak juróom ñaar la kon téere la bu yàgg su fekkee ne lii ñu wax mu wóor leen ne nekku ca kii ñu koy tuumaal mu weddi ne nekku ca loolu na leen wan ne moom loolu mën manhaj bu yàgg la woon ci moom boo xam ne du yéefarloo ab jullit ndax xëy na ñaar fukki at ak juróom ci gannaaw mënoon naa yor beneen méthode su boobaa su taxawee fii ci seen kanam danaa leen ah loolu ñuy wax kat ma nga fa woon waaye nag booba ci nangam ak laa toll woon damaa juumoon léegi soppi naa ko kon it ngeen mën koo dégg waaye la nekkoon foofa mooy li nekk fii ba tey boo ñu dellu ñoo ñu ne leen ñu seet leen ba xam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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل نحتكت لولو مومن تيتل نون بيالا بيغا خا موي سينو نون واجال لين لو نين مان رك نون ني نيوم نياغا تا لا نيكون رك ا باتاي دانيو نيوات اك يين تي جتايو فوكيل بيك نيار pour wara indi jaarop fukkeel beeg ñaar ci càllale googu nga xam ni moom lañu tàllaloon di ci nettali wax yu ñaaw yu jéggi dayo ci ñaawaay te docteur Mouhammad Ahmad Lo borom taqdisul ashxaas fi fikri suufi yekk ko ahlu tasawuf ba pare nag taxaw fële ni waxuma leen lenn waxuma kenn ci ñoom xam nga wolof dafa am lu ñuy def dafa am benn benn jigéen boo xam ni dafa mënoon a nettali trop lu mu dégg nettali ko loo ko nettali daal day mel na ganaar a dee ci biir bi di gës faaw mu dem nettali ko benn bis nag am ku ko woo nettali ko xibaar ba pare ni ko bu ko wax kenn moom it mu dem wax ko ñu bari moom ndaw sa ba wax de dee law nag ba delluwaat ca ko ko waxoon koo ko woo ko xas ko xas yu rëy yedd ko taaj ko bëgg koo toroxal mu ne ko yow kat yaa ni moon bu ko wax kenn ma defe ni mbooloo nga ci jublu kon yaa ni moon bu ko wax kenn moo tax wax naa ko juróom damaa defe noonu na bañ wax ji yem ci kenn waaye loolu tamit xam naa ni dafa bëgg a def rek affaire politique te mooy wax ñu bari ci ñoom lu ñaaw bu pare nag mën naa waat ni waxuma kenn ci ñoom bi maanaa li ma wax yemul ci kenn ku déggul wax nag doo ko xam tey nag boo moytuwul ci laay wàññi daal wàllu wàllu wàllu wàllu xalaqaat yi puisque docteur Lo mii fa mu ñun ndox amu fa tey ñetti point laa leen indi bu ma demee ba ca bu mujj ba da xam lan laa jublu ci ñu seet weneen yoon te bàyyi wii eh, docteur Lo moo wax lii فما من صوفي يريد تشريع ذكر أو صلاة من الصلوات إلا ويدعي أنه لقي الخضر وأنه هو الذي أعطاه إياه وما من أحد منهم يرتكب جريمة خلقية أو جنائية إلا أو يهمل فريضة من فرائض الله إلا ويواجه منتقديه بأن صاحب الظاهر ليس من حقه أن ينتقد صاحب المقام الخضري فمتى ما اشتهر شخص منهم بمخالفة الأوامر والنواهي الشرعية قالوا عنه كان خضريا ولا خضريا خضريا خضري المقام كان خضري المقام أو كان يسير على سنن الخضر موتك أي بوين معناه موح لنن جعل بچه بير منينك ونلاحظ أن المراد باتباع سنن الخضر استباحة مخالفة الشريعة باسم الحقيقة والعلم اللدني muy wax ju ñaaw jum askan ci ahlu tasawuf waaye nag bi ay fen xam nga nit ki nga waxal ko lu ñaaw même bu ko defee wax gu ñaaw gi lu muy jëriñati nit ki nga wax ko lu ko naqari même su ko defee moom moo ko def nga wax ko muy lu naqari loolu day dugg ci cadre jëw wax nit ki lu ko neexul te yow benn xaq ci moom tooñu la laalul sa yëf loolu day dugg ci cadre jëw waaw naka ma boo ko fenalee nag te fi nak docteur lim wax naqari na ñaawna na mais dafa dafa dafa doon ay fen te nak lima lay ñaan rek yow mi may déglu ak ko man ti doon sufiyan kunt am wahabiyan am bilantima bul def len ludul dul jëlal téere taqdisul ashas fil fikr sufi al juz al awwal page numéro 386 nga xol neena na amul benn suufiyanke bu nara rëddal rëdd bu meuna faratal ci nit ñi puisque tashri' xam nga tashri' docteur Lo daf cee juum manam mom dafa dafa dafa soxor dafa dafa def ak katchor katchor gi na yóbbu ko ci mu melni ku geuleum xam nga at tashri' متعلق التشريع موي التحليل والتحريم wa taxriim kenn mënut a داغي داغانال مير ارامال يينن مير داغي ام يو داغانال ام da ارامال كوم yoo buñ ne woon waa ji dafa bëgg ji dafa yoru jiw bëgg ji jiw woowu mënu koo ji ci jant mënu koo ji ci kaw garab du ko ji ci ab dir du ko ji ci biiru teen wala ab géej mutaalliqul mutaalliqul mooy al ardu il faut kooku li mu yor pour mu sotti suuf su su nangu rek lay mën a gis wala ñu ne waa ji dafa yor simiñ te war koo jëfandikoo aw simiñ bu mag la yor war koo jëfandikoo simin wi mënu koo jëfandikoo ci ci gileem wala ci nag wala ci nit mat rek mat rek mat rek mutaalliqu tashri' moy at tahlil wa tahrim loolu gone yi ndaw yi sax xam nañ ko mais jahil bu mag bi ba pare di rëy rëy lu di feeñ feeñ di di di wane wane lu ci kaw xam-xam mu ni léegi amul benn sufiyanke boo xam ni dafa nar a rëdd forcé nit ñi ci ak zikru ولا تي اك صلاتو بوك صلواتي بن سوفي سفيانك دو نار لولو لودول يدعي الادعاء موي واخ لودول دغ الا ويدعي لودول دنا وقت لامي واخ لودول دغ ني انه موم لقي الخضر دجناك جامو يالا بوبو ني واخ خضر تي قصته مع سيدنا موسى سورة الكهف نت لي تي لو باري باري il faut waji sofiane ke binara aramal ci seen kaw te daganal ci seen kaw ak zik ay zikru wala ay salawat il faut mu fenni dafa daje khadir te dana fen doli ci ni khadir moko jox lolu mu yor mu amul kenn ci ñun sufyanke yi fa maa min sufiyin ngay delu ci wa min ahad minhum amul kenn ci sufyanke yi kok yartakibu jarimatan khuluqiyatan mi ngi def bakar bo xamanteni bi ci jikkoom la jikko manam bakaru jikko la ni ki ni ki muy fenn wala muy naan sàngara wala muy njaaloo nga xam ne ci jikko la aw jinaa iya muy muy jinaa iya mooy moo dox xam lim def àq jaamur la jalgati ni ki mu rey nit wala mu gaañ ko wala yooyu wala mu sàggane farata ju yàlla farataal ci kawam saa yu ko kenn ci sufiyanke yi defee ñi ñëw di ko weddi di ko diingat ca loola il faut mu wax leen ni da leen di wax ni maanaam yéen ay niti zahir ngeen te nitu amul droit di diingat koo xam ni dafa yor maqaamam xadir mustawaam ci xadir lay jële mu dolli ca mu ni mu ni saa yoo saa yoo amee kenn ci sufiyanke yi koo xam ni siiwe na siiwe na mooy yàlla te mooy bàyyi ay ndigali yàlla ak di def ay tere yàlla bu bu saa yu loolu amee ci sufiyanke yi mu mel ne sufiyanke daal moom il faut dafa war a siiwee ak mooy yàlla te bàyyi santaane yàlla yi ak di def tere yàlla yi te saa yu ca tollee mbokki sufiyankeem yi dañ naan moom dafa àgg ci euh, martabatu alxadir xadiriyul maqaam maanaam moom tolluwaayam mooy xadir te it day dox ci suna ci ci ci yoon yi nga xam ni moom la ko xadir rëddal docteur Lo mu continué mu ni ñu ñu ñu seetlu nag moom moo ñoom ko bokkal ne seetlu nañ daal topp yooni xadir moom tekkiwul lenn lu dul daganal mooy li sharia doon koo dégg daal ci waxi docteur Lo mu ni la damay topp yoonu xadir topp gam koy topp la muy tekki mooy dafay daganal wuuteeg sharia ci turu latoon ak turu haqiqa wala al ilmu laduni aywa fi li ci nek ci fet ak ci lëntal ak wax yu du deug yàlla do nga xam nu mu toll legi tashri' ci bopam xam nga buñ ne buñ ne buñ ne sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا من قبل والذي أوحينا ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa muusa wa isa sharaa waa lan la leen tashrial an aqimu diina mu nekk mu nekk mu nekk euh, faaw ci seen kaw wala tatafarraqu fiihi mu nga xamante ne bii daganal na leen diine araamal ci ñoom tàqalikoo sharia noonu rek la mën a dem demee mu ni ñun dañuy tashria léegi buñ ñëwee masalan ci tiijaan yi bu Seydina Cheikh waxee ku iltisam tariqa bi faw da ngay wasifa suba ak ngoon wala da ngay wasifa ak di werd ñu ni lan mooy wasifa mooy astaghfirullah allahuma salli ala sayidina muhammadin li fatixi li ma bam jeex la ilaha illa allah jawharatul kamal benn waay xool ko ba ba seppali ko ni man de lii mënuma ci bokk kooku digganteem ak Cheikh lan moo fay dox ndax léegi moom daa def lu xaram am daa bàyyi farata ci kaw nga gis ni lu mu bëgg a tuddee tafsir ay fen la rek soxor rek mu ni nag doo gis benn sëriñu sufiyanke buy jéem a tëral euh, ay ay ay zikru ak i julli ludul ni dana fenni dafa dajé khadir sétal ma li sétal ma ji wax du ñaaw te il faut mu fenni khadir moko ko jox xoolal ma ji wax du ñaaw xoolal ma ji fen yow kan nga xam ci sëriñ ci ku la ne man limay may werd xadira ma jox bo ñewé ci ci mourid yi maam si ahmadul xadim al yurd al maxuudu min allah bi waasitati rasulillah ayna al khadir huna xoolal ma ji fen yure muni amul kenn ci ci ci ci sufiyanke kay kuy toggoo bàkkaar boo xam ne ci ci ci jëmmam la koy def wala ci ci jikkoom wala mu mun aju ci àq jaamur lu dul ni wala muy sàggane ay farata xoolal yi xas yu ñaaw lii lii fan la ko teg moom kan moo ko permettre muy wax lii ci kaw suñu ci suñu kaw saa yu ko waay defee nee na ci ñun soo ko tuddee danaan la eh yow nitu zahir nga mën nitu baatin laa yaa si dégg lii xoolal yi fen xoolal ma ndéef yu rëy xuluma yi kàcc yu rëy gi soxor gu rëy aywa mu ni saa yu kenn siiwee ci ñoom nga xam ni daal ñun ñun suñu yoon daal li muy tekki mooy boo ci yàggee rek da ngay mujj siiwee mooy sharia mu ni saa yu ci amee soo waxee dañ naan kii dafa toll ci maqaama xadir dafa àgg si ci darajay xadir seetal ma lii nga xam ne tasawu da nga ciy dugg pour jikko yu bon yi nga nga daj nga tàqalikoog moom jikko yu baax yi nga taqoog moom moom gis nga sasaan bi lañuy jox ba pare nag ni waxuma kenn dara surtout loolu vraiment mu nekk ay waxi saay-saay dëgg dëgg waxi saay-saay lool léegi xoolal fii li mu wax bu bu benneel bi bu njëkk bi dafa jeex dafa jeexal sama xol maa ngi ñëw ci point numéro deux mu ni ara man gis naa yow de yow de gisoo mina daruri yi ci lu munta ñàkk nee na gis na moom ci lu munta ñàkk ida naa mukafahata hada al fikri bu ñu bëggee xeex sufiyanke bu ñu ko bëggee xeex tasawuf bu ñu ko bëggee xeex moom li mu gis mooy nañu encouragé boroom xam-xam yi te orienté ñi nga xam ne dañoo jàng-njàng mu kawe pour ñu ñu ñu ñu indi ay gëstu yuñ def ay étude yuñ def yu am fulla yo xamanteni bi day day day diiŋab xalaatu kuréel gu sànku gi di leral fo yi nga xamanteni bi mom lañu mom lañu fas ara min ad-daruri ida shi'na mukafahata hada al-fikri تشجيع العلماء وتوجيه طلاب الدراسات العليا إلى تقديم بحوث ودراسات جادة تناقش آراء جميع الفرق الضالة وتبين زيف معتقداتها مانام موم لم دون واخ تدو دغ تا كودا خامنا ني موم لامي واخ دو دغ ميم موم خامنا ني واخول دغ ني دافا نييو بور بيند تيري تقديس الاشخاص بور توبندو مام سي احمد الخليم تي لم ديف توبندو مام الحاج مالك سي تي لي ني ديف نيوم نيار كين كو ني مسالك الجنان اك كفايه الراغبين ñaari téere la benn bi maam alxaaj malik taalif ko bi ci des maam si Ahmadul Xadim taalif ko mu ni ci téere yooye ñoom dañ cay dañ cay dindi lis taqal ci tasaw te bokku ci pour li ci li ci li li fi des doon li ci cosaan te doon lu baax mu ne loolu la jublu ci téereem bii xoolal ma yi fen xoolal ma yi yi intixaal daal di bëgg a roofu ci diggante ñaari wëli yu tedd yooyu dafa nga ni aw sobe wu mel ne yow mën naa roofu ci digg diggante ñaari kilifa yu toll ne ñu toll ñu moo taxit feni neen gis nga ko mu ni nag dafa bëgg a def ni ñu def ba noppite nag nee na dañoo war a xeex tasawuf ci boppam ñee lañ ci dugal ci bokkul la ñuy dindi te tuddi wuñ ko xeex moom nag mu ni dafay def na ñoom waaye moom li muy def mooy nañ xeex tasawuf bi ci boppam ba pare nag ñoom laay toppandoo xoolal yi fen mooy mooy bu ñaareel bi te it boo ko boo ci demal ci Euh, taqdisul asxaas fi fikri suufi tome numéro un page numéro trois cent seize bu ñetteel bi nag moo ci gën a metti te mooy ay wax yu ñàkk ñàkki teggi lool wax yu wax yu suufe wax yu bon wax yoo xamante ne bii bandi yi mbandaari yu mag yi sax duñ ko di wax mu zakat day day day day ñëw ñeme yàlla ba ba ba raw iblis wax ji iblis sax yaakaar naa ni du ko wax firawna allayin iblis almalun yaakaaruma ñu wax wax ji déggal li mu wax nee na hunaka waliyun yajurru safinatan axadaha axadaha alwaxil wala waxlu kii li mu wax kii li mu wax est na koo liir dama koy dama ci jaar noonu nee na daal am na wenn waliyu bu bokk ci sufiyanke am na genn gaal goo xam ni dafa ñëw ci tefes gi ba dugg ci beeñ bi ba suuf si téye ko bu baax ay awra nee na ka muy wax waliyu nee na ay awraam la takk ci gaal gi xëcc gaal gi pour gaal gi dikk baatu awra bi mooy baat boobu nga gis boobu xaa ak ak sood ak yaa gi nee na am na wali woo xam ni te kat li ci métti daan la maa ngi ko jëlee ci téere sàngam même bu nekkee ci téere sàngam wax bi lu mu lu muy jariñ fi te nee na su wali yu te ñun su day seet ñi nga xam ne ñoo foor ci ñun mu wax ci ñoom lii xoolal mu ni wa wali yun aaxar weneen wali boo xam ni yajlidu خادمه بإحليل نفسه استغفر الله بعد أن مده فطال طولا عجيبا حتى رفعه على كتفه حتى إذا فرغ من الجلد عاد إحليله إحليله إلى ما كان عليه أولا استغفر الله wax ju xajam wax joo xamante ni bii nee na am na weneen waliyu ki koy liggéeyle xalem bi mu yore su ko bëggee duma awra ji li muy tuure ndox góor la waaye li muy tuure ndox la koy dumaa te da koy guddal ba mu gudd lool ba man koo gàll ci mbaggam duma ci duma ci taalibe bi su noppee daal di koy delluwaat ba mu mel na meloon daal di dencaat ngóoraam xoolal ji waxi xoolal ji waxi saay-saay léegi lii ba pare naan la ci téere sàngam laa ko jële de maam lu mu ci jublu indi ko fii lan la ci jublu xam nga léegi inna allaha yaamuru bil adli wal ixsaani wa itaai dil qurba wa yanha anil fahsaai wal munkar moom gëmut loolu jàngu ko sax moom docteur Lo ba pare nag àtt na toog ak ak jëmmam ju ju saytaane ji ni ni ni ni ni ni jàkk nit ñi naan dama dama dañuy génnee li ci li ci li ci baaxul docteur Lo génne ko moom ci boppam moom lañu waroon a génne puisque moo baaxul xoolal mu indi beneen mu ni am na ci wëli koo xam ni nee na moom am sawam dafa meloon ne comme meew saw mi comme meew léegi lii lii lu mu wut si ci wax ji te ab sëq bu réeréeréeré la ci indi ci mujjug téere ba nga xam ni téere bi boo bëggee gis aw ñaawteef mbaa nga bëgg koo dégg yëral téere docteur Lo bi demal ci tome numéro un page numéro trois cent un nga xool boo bëggee dégg lu ñaaw déglul docteur Lo mu fenal la fen yu rëy soo bëggee gis lu ñaaw yëral mbindum docteur Lo mu waxal la wax yu ñaaw yu rëy yu fen yu toj xëpp yu mag yu mag a mag a mag sax léegi kii munta indi lu baax ci réew mi mun a indi lu baax sax ci boppam ndaxte ah léegi wuti xam-xam ba ñëw bëgg fa séenee mel ne kañe te mooy nëbbutu rek ak dox guddi képp waa léegi xanaa moom li mu yor daa gën a foor li yàlla wàcce woon ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam am sayyidina muhammad daan na làqutu am lim lim yor dafa gën a foor lu Seydina Aboubacar yoroon ak Seydina Omar ibnul Xattaab am daa gën a foor Imam Malik wala Cheikh Ahmadul Xadim am daa gën a foor Alaaji Malik wala Cheikh Tidiane ñii kan moo ci amoon garde corps kan moo ci amoon garde corps nga xamante ni bii ci nëbbutu ngay dëkk faw ñu mu woo génn ñu dugg mooy ni lim yor moom moo ko tudde lim lim ko li ko neex waaye yorul diine yorutuk njub yorul lislaam yorul alquran ak sunna da koy mbubba waaye alquran ak sunna ñaawlu na bu baax a baax lii te képp ku dib jullit di ma dégg da xam ma xam ndax lii ku ko tegoon ci taabalu sariya dana ko dana sariya da koy rafetlu wala da koy ñaawlu da koy ñaawlu moom mu attan ko bind ci téere ba pare nag téere bi ni ard alal kitaabi wa sunna nga xam ne kitaab ak mi nga xam ni moo doon tere lu bon lii ci kanamu moom moom ci kanamam ci kanamu alquran sunna ci lay waxe lu bon lii moom li ci di fen ak li ci di nett lu ñaaw moom moom xanaa jàngul wa qulu linnaasi xusnan moom xanaa jàngul wa ban ban politique lay doxal moom ci lii moom lan la jublu ci lii ba léegi bëgg a xeex tasawuf pour mu jóge fii loolu moom mënatu koo nëbb xam ngeen ni bëgg fee jëlee tasawuf puisque soxlawul ak njub ci Sénégal lim soxla mooy sénégalais doon nit ñu ñuy nax ñu ñuy nelawloo ba la bëgg ci ñoom bu ko defee mu seet la jub buñ leen du dëgg ba pare ni leen nag ci alquran laa sukkandiku ba ñu leen du dëgg pour nelaw loolu li nit ñi docteur Lo dëgg dëgg dëgg dëgg yaa ñàkk looy bañ docteur kii man mën naa koo considérer ci ñi nga xam ne mën nañoo dem duus fii ba pare wëlbatiku lekk lekk li génnoon ci ñoom xoolal ma ji wax ju ñaaw mu askan ko ci ay nit ñoo xam ne day tudd naan waliyu ak lay doomu aadama ak sell gam war a sell deful dara yow nga ñëw askan ko askan ci moom lii lii nga askan ci ñun loo loo loo loo yaa wow xol loo yaa ñàkk santiment loo dégg dégg dëgg dëgg wàllu insaaniye nite moom nga defut da ngaa nitewul te it moo tax toujours tooxi doona ci kaw tooxi doona rek sa sa ñi ñi la déggal ñëpp te xa te nag dañ laa xamul ñi ñi leen déggal ñëpp danga leen a wor yow rek yaa nit koo xam ni danga ngaa wor ca penku ñëw ci sowu dëkk fi wor penku ay wor nga leen wor ba ñu jox la lañ la jox nga dikk fas yéene sow nga dëkk fi ba faaw nekk workat ba faw loo xanaa dangaa defe ni doo dee da defe ni bis duñ ñi ña ko robe woon ñi la ñu ngay ñëw siggil ndigaale ji jib loolu dangaa dem defe du ñëw am lii la sa gone yi di waxal naan sa téere bi ku ko ku ko kontar da ngay dee dangaa ngaa jàpp ne yow doo dee yow loolu lii lan la lii nag ba noppi nga ni nag yow dangaa ñëw pour defar ana defar ga yow bu buñ doon seet ñi ñi ñi ñi ñi yàq yaa yore gasoil bi ñuy taal pour yàq nga xam ni yow incha allahu taala ñun dañoo mën a seede ni jàngoo dara xamoo dara puisque lañ doon doy am njàng mooy ak njub juboo yaa gën dëng garabu yoo afara ay man ittaxada ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa xatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi ghishawatan fa man yahdihi min baadillahi yow da ngaa ñooxu ci ci kàmbuk sànkute sànkute même boo jàngee njàngum cànkute nga jàng ñooxu ci ba pare di sànkaate ci ci ci làmmiñ wu ñaw nag làmmiñ wu ñaw te kat sa taalibe yi defe ne da ngaa dégg arab say arab yéemul kenn maanaam soo làkkinu arab wenn la ku ko gis ku dégg dana xam ne li waxi docteur loola puisque li ci nekk ci ci ci ci ci ci ci xiyaana li ci nekk ci intihazul fros yàlla dong dong dong dong moo xam nu mu toll mennum yàlla subhanahu wa taala ku yër mbind rek maanaam say kalimaat sax dafa wuuteeg kalimaatu jullit dëgg dëgg لعنة الله على اليهود وعلى الوهابية إخوة القرود من الوهابية يق كيس تايمم لما يقاتل الله جفوف باي مبقى جلدي نسيت لي بخم تقدق لي جادنا ولا جادور لما يتحول فوفو gannaaw bu ma jéppee docteur Lowe jéppi képp ku ànd ak docteur Lo yëgal ñi ànd ak ñoom ñi ñi ngi ànd ak benn saay-saay boo xamante ni bii fii yow mi ne ay yaami ay mbiram dana teer dafa muy teere du neex te lii lu mu gën a yeex a saafaraw bu saafara sa ñëwee di gën a metti ci moom te it la budda danañ tax taxaw ak moom ëllëg ci kanamu attekat bu mag bi te mooy suñu borom subhanahu wa taala te wallahi deesu ko ko baal te wallahi foofa dollar dollar du fa dem waxuma la ak ab dollar junay sterline yi du dugg foofu mukk waxuma la nag rial xanaa xanaa rial mooy ngis ngistalal pour ñu jox la ci lañ lay tekki rial mooy defal riyaa u defal riyaa u ñu jox la ci xaalis bi alali àdduna jaral la lii docteur ngay sërëx sërëxi saaxar saaxari di niroo ko till wax yu ñaaw yi nga attan ko wax ci ay kilifa yoo xamante ni bii sa ndey ak sa baay ci ñooñu lañ aju woon ba nuñ génne àdduna ak say mag nga àttana taxañ ñooñ ñëpp dugal leen ci ci wax ju ñaaw ji ana sa xol ana sa ngëm ci prix yow tuddale mbaam xuux mooy tooñ lay mbaam xuux yow daal yéeme nga xalqun aaxar waaye nag yal na la yàlla dajaleeg sa jëf ju bon ji ci sa tey ak sa ëllëg yal na la yàlla dajaleeg fayug sa jëf ju bon ji ci ci léegi ak ca kanam ak ca ëllëg ak gannaaw ëllëg yal na yàlla dajale la ak sa xol bu ñaaw bii sa jëf ju bon ji mu nekk pay gu teew ñëpp jël ci yow leçon ñëpp gis ni yow mi tooñkat nga mujj nga bu mag yal na la yàlla teg lu diis lu attanut yal na yàlla màbb say arkaan yal na yàlla lëndëmal sa kanam taal sa gannaaw yal na la yàlla bàyyi rek nga dëgmali naari jahannama ba nga tàbbil ca sa bopp laxanatullahi alayka wa ala man yudaafiuna anka mbokk jullit yi ci bépp xol bu jeex fii laa mën a yem tey ak kàccoor bii di nit nit lu bay wut ñu koy jéem a ngembaka def yëf ci kawug réer rek ci kawug réer ci kawug réer ak réer xam nga ni moos nga fekkonte ni yow yaay jàng pour jubbanti senegal wala jubbanti kenn boo ko naroon kon nga jub njiit loo xamante ni bii ci nëbbutu nga dëkk loo waaw looy nëbbu njiit loo xamante ni bii fu ñi mu wut a mu wut xëy nit suba fas na maa yéene dem benn dëkk ndax njubadi aleykum salaam mbokk yi daal maa ngi yemale foofu puisque bu mu ko ne léegi ma wax lu ëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.